nag gouvernement bi nag. na ngeen di waajalee élection yi waaye yéen ngi waaj élection yi bu baax. tubaarkàlla rokkos dugg na démb di waaye loolu dinañ ci ñëw ci kanam mani mani hmm. kii président. Hmm? laaj ko ndax ñu ngi waaj xale yi ci mbedd bi. tamit ndax yéen a ngi koy waaj yéen a ngi koy waaj loolu tamit na bu na bu dama nekk ci plaidoyer bul ma yàqal yow su ma la toppee ci say bërëxal lii président. président ñu ngi lay nuyu baax Sall. wax dëgg hmm. yàlla Sall ngaari lam toor Bourguédé. ñu ngi lay bëgg baax di la ziar ma ni xanaa bëggoo booy dem bàyyi nit ñi ci kaso bi de ah. dafay bokk ci sa bilan de loolu bàyyi ci xel. pour booy dem ni ñu ne moom kat ndeysaan ba muy dem ah ba kii ma ma kii waa da dañ doon wax naan bàyyi na fi ay tapi ak tabloo waaye boobu boobu boo tane nit ñi nekk ci kaso yi de loolu dafa ñaaw de. ak naan kees yi bàyyi waaw loolu dafa ñaaw de man bu kees yi sax bu ci bu bu kees yi am dara nit ñi ñu am jàmm rek. te jàmm bokk na ci ngi génne man kii président. da doon dimbali ngi ngir yàlla sunu papa ji oustaz Assane Seck mi ah, sunu jigéen yi Mati Sarr nga nga génne leen kaso bi ah ma ni gis naa waa kii Ligue sénégalaise de droits de l'homme ñu ñu introduire ak rado waaw ñu bëgg également def plaidoyer pour la libération de Cheikh Oumar Diagne mhm. ak Karim Xurum Xaax ils sont pas les war nañ leen génne ci kaso bi ak jigéen ñi nekk ci prison bu camp pénal te yelloo ko waa Rebeuss waa Cap Manuel maman yi nekk ci biir yeneen prison yi nekk ci biir réew mii man ni euh, président dina ñaaw de loolu boo génnee ñu ne defar na TER defar na BRT wax dëgg yàlla loolu yëpp mu ngi waaj a daw waaye ñii ñaa ngi ci kaso bi kon nit ñi du ñu am ñu yéeg ci bis yi de loolu ba loolu yaa ngi ci bàyyi defee de bis yi ba pare te mu am ñu bëri nekk ci kaso bi ñii duñu yéeg ci bis yi duñ ci de ci yéeg de te looloo tax keroog bi ngay inauguré dafa mel ni ñu nekkuñ fi woon sax waaye ñu ngi doon dégg ay yuuxu foofu fañ nekkoon ca Doha man ma xam nga man wax dëgg yàlla sal nga ñi ñi ñi bañuñu la bañuñu la amuñu problème ak yow mais mais xëy na système bi ni ñu koy defee nii ni ñu koy defee moo doy waar mhm. waa comme ñaan naa te kii te teema ko théâtre boo comme naa ñi théâtre da leen di seetaan ah, yow da ngay seetaan ah day seetaan ñi théâtre na parce que moom nee na bu xëyee buy seetaan ñi théâtre day seetaan ñi théâtre na bu hmm. baal ma théâtre rek baal ma théâtre ale ma ne fii nangoo naa fee théâtre ci mbir mi ma ne nga bàyyi ñii ñi ñu génn ci kaso bi waaye Sall dimbali nu ngir yàlla ci yonte waa lii ba jàmm la <laughs> ah waaye yow dimbali nu ngir yàlla ak yonte bi baal oustaz Assane Seck mi mu génn ak ak Mati Sane ña ci kaso bi Cheikh Oumar Diagne Karim Xurum Xaax ñi nekk ci biir kaso bi yëpp ñi ñu xam ak ñi ñu xamul Bassirou Diomaye Faye du ngeen ko bàyyi waale waa du ngeen bàyyi waa du ngeen bàyyi Ousmane Sonko wala bàyyi leen ñi ngeen dugg tëj ci biir kaso bi ngir yàlla ñu génn ñu mën a dugg ci BRT bi mm-hmm. mani bani boo gé bu fekkente ni yow yow dem da ngay dem da ngay dem xaw ma kuy toog sa ginnaaw waaye da ngay dem. est-ce day dem da ngay de si day dem. day dem moom wax na ne day dem moom dafay dem moom ni muy demee ëpp na. Mm-hmm. te comme day dem damaa bëgg woy bi rafet wax dëgg yàlla bëgguma woy wi ñaaw. ma ni nga pour nga dimbali nu rek ngir yàlla nga libéré ñi nekk ci biir kaso yi euh, ndax mu bañ a bokk ci sa bilan. bilan bi kaso yaa ngi ci biir de. kaso yi ñu jàpp ci biir kaso yi mu ngi ci biir bilan bi. Mhm. loolu bàyyi leen ci xel waaye bu ñuy jublu ci ay élection comme da ngeen bëgg ay points positifs yu bari boole leen ci ngeen génne waale ñii ci kaso bi waaye ñun sonn nañ de man suba bu ma xëyee ñu ngi wax ci oustaz Assane Seck mi tous les jours que jëfee ñu ngi ciy wax. Mhm. sunu papa ji tamit nag nga xam ne lu baax rek lañ ko xamal. ma ma ñu mën nañ la seddal ne nit ku baax la liggéey na nag moom ay at xam nañu ko. Mhm. xam nañu xol bu rafet bi nekk ci moom. te du nitu ayit. non jamais de la vie mhm. musul nekk nitu ay mhm. oustaz Assane Seck musul nekk nitu ay au contraire nit ku sedd guy la wax dëgg yàlla ku amul benn problème bàyyi leen ko mu dem eh, ah <laughs> waa man lii moom nag lii nag dem la président la moom waa Fatick la du. président du waa Fatick. la je moom séeréer la yow tamit. séeréer tukulóor ñëpp a séeréer séeréer kan alpulaar la séeréer tukulóor la moom alpulaar pays les moyens amul loo warul mën a lijjanti ci réew mi xanaa nga bañ koo yëg wala mu bañ laa neex mhm. te wax dëgg yàlla nag ñii nag ñii ñëpp nekk ci kaso bi nag ah? duñ ko fàtte de service bi duñ ko fàtte de mm-hmm. waaw dinañu toogaat ay at di fàttaliku naan durant le règne du président de la république Macky Sall il y a eu beaucoup te loolu rafetu du way bu rafet loolu dafa ñaaw dafa ñaaw mm-hmm. dëgg yàlla bi ngay dugg si ci réew mi wàdd mënoon na ko de te il l'a pas fait mm-hmm. du fii dañoo dañoo am lu nu bakkee Sénégal nit ñi diñu ko taggee naan dëkk bi état de droit la am lu bëri loo xamante ne ndeysaan dafa bokk ci nu ñuy fëgg suñu dënn ñu ne loolu suñu mérite la ana nu dimbali waaye ñun Sénégal relation humaine la ñu xam teraanga la ñu xam lu baax waxante lu baax même bu fekkente ne danoo meroo bu ñu poñante itam bu subaa dañuy xëy ànd balaa nga koo xam nga tooñ kenn ki nga doon poñanteel démb. Mm. kooku mooy wëlbati ku faral la tey ñun loolu la ñu xam. loolu moo nekk ci suñu taarix moo tax ñu ñu tuddee le pays de la teranga s'il vous plaît. Mm-hmm. s'il vous plaît acte d'allégeance pour. Oustaz Assane Seck Mati Sarnian et tous ces prisonniers et prisonnières qui sont dans les geôles de euh, du du du Sénégal ñu dimbali nu ngir yàlla ngeen ngeen ngeen libéré ni président dimbali ma waaye ci foofu jàppale ma ci ngir yàlla Sall jërëjëf. may ko deux minutes ci sa temps rek nga déglu. kii kay jël naa 35 minutes ngeen mës gis lii ah. d'accord jërëjëf alors euh, yaa Seydi. Euh, yéen kàddu ngay yëkkati ñu jëmale ko ci Mati Sarr ñaa ak euh, Oustaz Assane Seck mën leen bàyyi ñu dellu ci seen njaboot ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ci kaso bi te ñu jàppee leen ay prisonniers euh, politiques. allô monsieur le président. <laughs> Mohamed Ndiaye. je vous je vous je vous je vous entends d'accord ba <laughs> tax c'est c'est qui. ay oustaz. Sandar Sandar d'accord j'ai un oustaz Diaga. voilà. le monsieur le président de la République. oui s'il vous plaît. oui. Euh, c'est moi oustaz Cheikh Sadibou Diaga. Mm-hmm. animateur de 2 TV. Mm-hmm. coordonnateur tous les associations animateurs d'escrocs du Sénégal. Mmh. Donc, en ces euh, travers à la présidence, de, à euh, côté de monsieur le président Ablaye Wade, mmh, votre père. Mm-hmm. Donc, euh, Monsieur le Président, moi, je imam. Mm -hmm. Je suis mm-hmm. Il faut écouter très bien. Mm-hmm. Oui, d'accord. Notez. Notez. Notez. La fois passée, j'ai demandé, <laughs> la, bon, les années passées, 2003, 2023, mmh. pour mm-hmm. laisser les prisonniers, surtout les sans sec, mmh. et les femmes, que, Matissarnia. Matissarnia. Mm-hmm. Euh, donc, euh, Président, attends, attends, attends. Libérez. Moi, je suis imam. Je ne suis pas comme ça, euh, crier comme ça. Hein? Ah, d'accord, merci, d'accord. Mhm. Euh, le d'autre, ça, il a quitté, bon, il a laissé bon, 1800 et quelques personnes. C'est bon, c'est très bon. Mais, mm. mais pourquoi Ousmane tout, dans 9 mois, il peut, un an il, mm. il est beaucoup de Non, non, non, attends, mm-hmm. <laughs> je vous entendais bien merci bien. d' accord ba mm. d' accord. à mm. ah, bientôt d' eh, merci. monsieur le président. oui oui euh, d' accord en mm. mais ah bon. tag ma tey ci. de de sa TV. bonjour monsieur le ah, président merci bien. je très content aujourd'hui. <laughs> on est euh, content. Euh, tout à l'heure c'est ma. dem leen beneen seen xol collègue. fii moo neex lekk euh, Seynabou Koor Seynabou Koor imam sax aujourd'hui il faut parler français très bien voilà voilà voilà mm. voilà donc euh, c'est euh, maman dem leen beneen seen xool wu ma recommandé quoi ministre non c'est toi. déedéet bu ko ministre de na libéré rek na libéré rek ñooñu. na libéré quoi Aïssa non non c'est pas pas Aïssa non non. ah Aïssa monsieur le président encore. kama kama yaqulu sallallahu alayhi wa sallam rahimu fi l ardi summa yarham fu uula bi maanaam a tekkale ko jolof yàllonte bi nee na yow mi nekk njiit yërëmal ñi nga jiite monsieur le président encore tubaab bi d'accord léegi la may wax ci alxuraan aram nga déglu ko yàlla da laa dénk lu mu dénkul kenn waaw euh, nga yërma yàlla yokk say projet mm. barakallahu yàlla mën na ko mm. président mm. treize personnes treize dix huit mille sénégalais mu tànn la ci yow war ngaa gërëm yàlla mm-hmm. yàlla bàyyiwu la mm-hmm. yàlla teral na la mm-hmm. yërmande rek moo ci kaw yonent bi ne nag boo yërmale nit ñi ñi nga tane